am na boy yu mën rap mais waruñ ma ci boole man mag bu mën rap la ma boy di war di xoole fi kenn judduwul seex Mike fàttalikul démb xamuñu rap ba nekkee xale dañ doon daw semb jàngil nga bañ moom nga lay yokk sa papa ëllëg man du mag boy yi ba may rap ñu ci sàmba ëllëg xadaru tuuti lay sànni xam ni aara mer na jant du xulloo ci tàngalim yeer weer bi leer na <laughs> maar est-ce que t'as mijn rap? Hou me lil me voor me, je bent que tu bent een jap. Est-ce rock jazz, R&B, est-ce que mijn taas me? Waar doe hij, man, je plaats me, maar wij niet nangel. Je pet, pity, zie zo, one way is weg, charme, like, hoe nan mong bizo. Fik hem, le fik, bad jam, le gis, gis, de kiriptage. Somme façon inspiration, like, jokke heritage. Een song to doet, een zon je doet, what important to do İmam diyor hutbu memoy Out of fresh, out of cash, Mr. Out of baby I'm the best nigga, best what I'll be ay salam salaamaaleykum gars c'est dans Chess TV une émission def rap ak Mif le Roi buuru rap yeeg rap chaque dimanche à partir de 17h jusqu'à 18h Ni lay demain cette fois ci nous avons ay partenaires yi nga xam ne moom la émission bi je veux nommer association des rappeurs de Chess, Art Thiès ci biir loolu xaaral dalal benn DJ bi nga xam ne représente Art Thiès moom meen hey what's up. Eh, ji nakala la Nakawar. mais nakala. nice nice gaynde mais gaynde lan nga ñu indi eh, tout d'abord ma ngi nuyu spectateur yi nga xamante ñu ngi suivre li nga xamante moom mooy eh, eh, Thiès TV di wax rek dama indi benn package bu ponkal xam nga sànq sa biir introduction yaa ngi wax waa Art Thiès ñoo ben benn compétition compétition mi ngi tudd hip hop cypher challenge édition 2020 ñu ànd ko ak ministère de la culture si cadre fond Covid 19. mais loolu nan lay demee. nu muy demee déjà am nañu 20 artistes yi nga xam ne déjà qualifié nañu si 20 artistes artistes yooyu noonu dañ koo répartir si pool de 4 chaque pool de 4 day am benn vainqueur. ok noonu lay demee chaque dimanche à partir de 17h jàpp 18h chaque dimanche dañuy présenter 5 artistes 5 artistes yooyu noonu dañ ci jël kenn ki nga xam ne moom mooy gagné bu gagné loolu ñu jox ko li nga xam ne moom la ñu tuddee prize money place money boobu boo ko déggee mooy xaalis. koppar koppar liquidité liquidité boo ko déggee mooy li nga xam ne actuellement mooy yëngal jamono donc artistes yi nañu ñëw. téléspectateurs yi nañ ko xaar à partir de 17h jàpp 18h dimanche lay doon biir Thiès TV ak Mif le roi buuru rab yeeg rab bi. en attendant les événements kon donc RV téléspectateurs waa Thiès yëpp kaay leen ñu Cypher challenge édition 2020. ok ba léegi ñu ngi bëggee ñi nga xam ni ñoom ñooy partenaire yi Mozart Entertainment association des rappeurs de Thiès Art Thiès ak waa Thiès TV. boo juddoo di sukuraat dinañ la suuli xaat la leeree ni tey pour man ñoom ñëpp daño dee kon kenn du ñu fi faat man ñeewuma samay maamiñ daan tàkk bum ci baat man gëw ma Africa Unite kon bàyyi mag samay track yu nice bul wadal sama rongoñ yi yaay kaay dagg sama baat bu gaaw <laughs> rappeur yee gën a féege un milliard foo bi yee féege ni pour ma jaay drog faaw ma am ni jaayu police ki la moo tax nga dagg baag kon paakoti baa ma teel a drapeau bi xewi ni dragon yi ni afrobeat iPhone 6 ma la faakooli Alpha X aw ma jotu xaar booy dam koy def droit au booru Grand Yoff ma Sidi I love you yaakaaruma la ni sa kool may chargé sama bopp xaaruma ah, ah. kenn pour ah. indépendant foog charme de Gaulle